waaw Latir euh, maa ngi leen di dalal jàmm ci suma kër euh, fii di këru taalibe di kër euh, mustapha Diaw responsable politique parti socialiste membre bureau politique membre union régionale bu Thiès membre union communale bu Thiès di porte parole union communale bu Thiès maa ngi di dalal jàmm ci waxtaan bi situation parti socialiste au niveau national Tay, euh, mën nañoo wax de dañoo génn ci ñaari ñaari euh, xew-xew yu am solo ci ci parti bi bi ci euh, le 5 mai 2016 parti socialiste dafa am ay ñu mbubboo woon turu parti bi e, andi ay sàmba booy ñu ñëw attaqué bureau politique bi ñu doon def booba ñu ngi doon waxtaan ci parti bi kan lañu war a àndal ci référendum bi am déet ñooñu ñëw attaqué responsable parti bi indi ay yaasa ay yataki gobar aki xeer e, di attaqué responsable parti bi te ca ñooña bokkoon na ci qui représenté ki nekk institution bi représenté institution parti bi muy le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng ñooñu ñu bàyyi leen lu toll ci ay weer pour ndax yaakaar na dinañ rëccu acte rëccu wuñu parti bi jël ay responsabilités beneen xew-xew bi ci am mooy ah parti bi à l'unanimité demandé ne ñooñu nañ leen euh, jël ah génne leen sunu parti comme ñoom depuis ñaari at nu ngi am doxalin boo xamante ne ni doxalinu rébellion la ci biir parti bi Andu ak ñun ay élection déposé liste yoo xamante ne ni liste bu contre ñun liste bi parti bi bokk la ñenn ñi créer ay mouvement politique te loolu ku ne xam na ne article 7 euh, bu règlement intérieur sunu parti ak statut yi dañu ko dàq comme ñoom jëluñu amuñu seen fulla ak seen fayda àndatuñu ak parti socialist ñu bàyyil seen bopp parti bi nag demande à l'unanimité bañ koy def ne ñooñu nañ leen génne ci suñu parti loolu mooy euh, xew-xew benn xew-xew bi nga xamante ne ni bu am solo la ci vie wu parti bi depuis atak nangam nu koy dox benen bi ci top moy njaayum carte mi nga xamantene ni tàmbale dañ ko pour renouveler te njaayum carte momu officiellement euh, depuis samedi passé tombé euh, le 10 lañu officiellement jaay tambali njaayum carte bi carte numéro 1 te mu waran tollu ci 125 000 cartes carte numéro 1 bi Ousmane Tanor moko jënd pour woné que ne mom euh, ba sunu joonu Yalla tay yi mo nek le premier socialiste du Sénégal xam nga affaire sunu ex camarade Khalifa Sall niko parti bi di vivre moy euh, mbir la mo xamante ni yone moo am ay lu mu koy ba jàpp ko euh, jugement Nous sommes en tant que citoyen d'abord républicain et ces deux termes sont plus forts pour moi qu'être socialiste euh, donc li ci sunu rôle mooy am posture républicain posture citoyen muy bàyyi ba justice atte ñu door cee jox sunu xel ak sunu xalaat waaye nag lenn am na dafay wone que ne Sénégal mu ngi nekk ci soppeeku am solo soppeeku ki am solo mooy dañoo jàppoon ne soo nekkee homme politique loo def dara kenn warul la cee topp ci dara alors que les jeunes africains aujourd'hui leçon yi ñu leen war a jox manam liñ leen war a jàngal ci wàllu yarin ak melokaan melokaanu gor melokaanu nit ku am diine mooy que ne jubal moo ëpp solo nga nekk homme politique wala nga nekk leneen lu mënti doon luñ la dénk jàppal ne ëllëg war nañ la ko mën a laaj nga rendre ay compte lan Sénégal doon doxee 1960 ba 1990 ba 2000 sax waru noo nangu ne noonu la war di continuer di doxee li jubut dañu ko war a dindi gën a dooleel li nga xamantene ni mooy jub ak état de droit te jàpp naa ne aujourd'hui loolu exemple boobu la ñu tàmbalee won les nouvelles générations d'hommes politiques que ne looy def tey ëllëg fexeel ba bu ëllëg bu ñëwee di ko saytu danañu gis ne yorin ba nga ko yore woon mucc na ayib en tout cas nun suñu génération loolu lañuy ñuy loolu la bëgg pour ëllëgu Sénégal ndax euh, suñu ko deful euh, dinañu continuer di am ay doomu sénégalais yuy jël géej gi di bëgg a dem bitim réew ëllëg bu ñu sellalul yorin wi dinañu continuer di am ay doomu sénégalais yuy jël désert bi ñu leen di jàpp ay libi di leen def ay jaam loolu yépp li ko waral mooy ni nu tëgge woon maanaam ci nu yorinu réew homme politique yu njëkk ya def nañ liggéey bu am solo ci Sénégal waaye am na yenn yoo xamante ne nii ah, na mu daan doxe mënatul continuer di doxe noonu parce que dañoo war a xalaat nag population yi loolu moo waral ñun suñu engagement en tout cas daal mbiru Khalifa Sall bi li ci guddal ak li ko gàttal nekk na pour man jàngat gu am solo goo xamante ne ni homme politique yu démb yi ak yu tey yi ak yu ëllëg yi war nañ see xool naka la ñuy doxee ba nga xamante ne ëllëg lu mel ni dootul amati. waa situation parti bi à xam nga parti bi tey bu ñu waxante dëgg euh, le camarade secretaire général Ousseynou Kayta moo yore union communale bu parti socialist mooy njiit li. parti socialiste euh, bu Thiès ñetti coordination la am astafirla juróom-ñaari coordination ñetti coordination à Thiès Est ñaari coordination à Thiès Nord ñaari coordination à Thiès Ouest parti bi nag dëgg la naam toog nañ ay diir wala sax suñu waxalee yàlla mooy ba defee renouvellement léegi muy 2014 li fi am ci activité politique lu nuy wàññi ci ay loxoy baaraam la te loolu du jaaduwul war nañ ko gën a jàngataat ndax parti lii secrétaire général Ousmane Tanor dien wax te mu ngi koy firndeel bis bu ne ci jëfinam ak doxinam ak waxalam waxinam mooy que parti animation la mobilisation la ak joxe information la te bi ci ëpp solo jàpp naa ne animation ak mobilisation bokk na ci ndax ci ñaar yooyu ci ngay mën a joxe information te ay la yéwén bu ñu xoolee boobaak léegi muy ñeenti at yi te ñu ngi tollaat ci phase renouvellement ak njaayum carte yooyu defe naa cee sooxe na fi te ñun défi boobu nag gém nañ ko relever en organisant le ce qu'on appelle le grand meeting de Thiès

parti bu dynamique parti boo xamante ne nii boo xamante ne nii taxawaayam ci coalition benn bokk yaakaar taxawaay bu ñuy naw la taxawaay bu ñu gën a respecté lay doon taxawaay boo xamante ne ni dañuy jox dayu ak gëdd parti socialiste ba ëllëg euh, ñépp sawar ñëw ci biir parti bi nga xamante ne nii patrimoine national la ndax mooy parti bi nga xamante ne nii moo njëkk a yore réew mi tabax réew mi jox koy institution jox ko dayo boo xamante ne nii ba tey moom la ñuy continuer di tiitaroo ak di ko ndamoo ci bitim réew donc kon parti socialiste ay la yéwén li weesu moom weesu na nu ngi jëm ci ay renouvellement ah, lañ ci waroon a bay sunu waar bay nañ ko fi ñun. waaye ñu bari sax ñi nga xamante ne nii xëy na euh, ni may doxalee xamuñu ko euh, ñu ngi ci ñu ngi ma ciy sànni xeer parce que dañuy wax ne Moustapha Diaw. Euh, Euh, yemul rek ci section wam day dem ci yeneen kii di di di wax ak yeneen socialiste yi day day dem foo xamante ne nii euh, waaye li mu bëgg a wax foofu mooy euh, gis nga personnalité ak dayo nit ci nit ki lay nekk du rek dafa bokk ci parti te am nañ suñu personalité am nañ suñu style suñu manière de de la politique waaye lépp lu ñuy def di dem te ñu jàpp ne suñu warugar la

su ma gisee benn gox boo xamante ne nii am na socialiste bu wér bu fa nekk te bugg naa gis ay camarades par socialiste am dama fay dem saafonte ak moom gën a dëgëral taxawaayam ak ak ak ak euh, engagement am ci biir parti bi euh, leneen li nga xamante ne nii dañ may gis may ànd ak suma mbokku Benno Bokk Yaakaar yi loolu man pour man ci dama koy toppandoowee ci Ousmane Tanor Dieng ndax euh, mooy suma leader te ni muy àndee ak président Macky Sall man dama ko daf ma neex Euh, ndax dañuy dox ci intérêt réew mi ak intérêt askan bi kon loolu dafa war a répercuté wu ci base bi ba euh, militant yi euh, ak sympathisant suñu coalition di gis leaderu parti yi sikk coalition bi di ànd di di di décider ndoo di def ay activité di dem di jaalendi ci dëj yi di dem ci ngénte yi di dem ànd di dem ci xew-xew yi loolu lu am solo la Euh, te loolu mooy sama taxawaay man tey Thiès te yéene naa parti bi à Thiès am naa yéene yu gën a rëy euh, yéene yu gën a rëy euh, pour parti socialiste fii ci Thiès yéene yooyu bokk na ci parti socialiste li ñu jaayoon ci carte mu gën a ëpp loolu li ñu amoon ci ay militants yu wér yu dëggu nag gën a ba coalition dana jox gëdd ki nga secrétaire général union communale bi secrétaire parti bi dans la coalition man euh, acte yi may posé sur le plan politique mooy lu Ousmane Tanor Dieng lu parti socialiste dans la coalition ben Bokk ànd bi ci biir 2019 xam nga parti socialiste dafa am na muy doxe ni muy doxee bi ci njëkk mooy bu fekkente ne dañuy jëm ci élection day am présidentielle day am appel à candidature nu xool candidat yooyu ban kan moo ci gën a ah dëppoo ak bëgg-bëgg askan wi programme ban la tëral ngir njariñu askan wi nu def loolu bu kiwee ñu def congrès d'investiture investir ki nekk sunu candidat waaye loolu àgg guñ ci waaye li ëpp ci ci ci ci sénégalais yi tey te sénégalais yi moo seen opinion moo war a ëpp doole opinion euh, parti bi wala opinion ñenn ñi nga xamante ni dañoo wax ne parti socialiste dafa war a am forcément candidat boo xamante ne nii. Euh, socialiste la war a nekk dafa war a yore suñu carte euh, te ñi ëpp nag ci partie bi ñoom dañoo jàpp ne logique bi mooy ñu suivre tant que euh, ñoo ngi ñuy jox suñu dayoo ak suñu gëdd ci biir coalition bi ñu conti logique bi mooy ñu continuer dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar waxtaan juboo xool ban profil moom moo gën dans le cadre de la coalition pour l'intérêt des Sénégalais man bokk naa ci ñi nga xamante ne nii sama xalaat mooy war na noo liggéey xool ci biir Benno Bokk Yaakaar profil bi nga xamante ne moom moo gën ak programme bi nga xamante ne ni moom moo gën ci biir coalition bi ak sénégalais yi ñu continuer ci boobu kii ndax réew mi ni mu àdduna ni mu tëggoo léegi boo demee sax Allemagne yaa ngi gis que ne ñu ngi jéem a xool euh, naka la ñuy def ba booloo pour mën a dem ci coalition pour mën a dem ci élection yi ñu dëgmal àdduna bi yëpp léegi c'est les grands ensembles ndax benn parti mënatula gagner élection moom kese noo mën a jàpp ne nag kon Sénégal gii parti socialiste moom cundum dafa war a dem élection dafa war a am candidat te loolu sax mësta am ndax parti socialiste fu mu daan demee élection am na ñu daan ànd ak moom di ko gunge waaw ndax ñi ko doon gunge di ànd ak moom di def candidat parti socialiste seen candidat ndax ñooñu dafa jar dañoo jaayoon seen parti déedéet

Euh, euh, jafe-jafe yi nga xamante ne ni wax naa ko muy ñiy dem ci géej gi ak ñiy dem ci désert bi bu ñu deful intérêt Sénégal jafe-jafe yooyu du fi jóge euh, te intérêt Sénégal nag ay la yéwén moo ëpp doole intérêt parti politique wala koo xamante ne ni si agenda agenda personnel am lay dox dama war a nekk candidat par force loolu du du intérêt Sénégal man lu may jëf damay damay damay doxee ci orientation yi nga xamante ne nii bureau politique bu parti socialiste ñu ngi koy jox dañ ne dañoo dëgmal njaayum carte tàmbali na Ousmane Tanor biral na ne ne moom mooy première socialiste du Sénégal ndax carte yi ñu génne di ko jaay ba ñu ñëwee moo njëkk a jël euh, xaalisam bi muy jaar carte bi di jaar téeméer Ousmane Tanor Dieng moo njëkk a jël téeméeram jënd carte numéro un ci et carte yi nga xamantene ni war nañ ko jaay loolu biral na ne euh, moom mooy socialiste numéro un waaye ci biir bureau politique dañoo wax ne nañu def animation nañu def mobilisation ngir jaay suñuy carte lii may dëgmal muy euh, meeting conférence bu mag euh, à Thiès le 18 février à partir de 15 h au Sams Prestige ci top tànku wala ndigal ak orientation yu bureau politique la muy nañu animé waaye man li ma ci gën a yitteel nag te suma ambition pour les socialistes thiessois mooy que ne parti bi la mu jaayoon bee passé nu jaay lu ëpp loolu moo tax dañuy invité ñëpp muy les socialistes les sympathisants du parti socialiste at ñi nga xamante ne ni na amaguñu carte parti bi waaye ñooñu dañ leen di invité pour ñu ñëw pour ñu jaay suñu parti pour ñu wone taaru parti socialiste pour ñu wone parti socialiste ne moom mooy patrimoine Sénégal patrimoine Sénégal la ndax mooy partie bi njëkk a yore réew mi tëgg lépp loo xamante ne nii mooy tax tabax am réew tabax tabax réew mu taxaw parti socialiste moo ko def te loolu sénégalais yi ñi nga xamante ne nii tey ba ñuy jóge ci pouvoir bi muy en mille ñu nekk tey en mille 2019 am nañ 19 ans ñu judduwul woon sax am nañ 19 ans tey ñooñu xamuñu. Par socialiste bu démb day war ñu xamal leen parti socialiste euh, si ñaari thème lañ le parti socialiste d'hier à aujourd'hui euh, beneen bi ci euh, bilan d'une coalition parce que day nekk logique parti socialiste bu daa depuis ba ko ak ans lan la def yan tànk yan jéego la teg ba tey ba Ousmane Tanor yore ko am fu ko yóbbu yóbbu ko ba ñu nekk ci coalition boo xamante ne ni tey coalition boobu mu ngi def ay jéego yu rëy ci jëm ëllëgu Sénégal suba loolu moo waral euh, suñu defee thème boobu ba pare ñu indi temu benn Bokk Yaakaar bilan d'une coalition euh, bu bu weesoo Euh, wacc nañu def fa déclaration yu am solo ba nga xamantene ni ceesuwaay yi dinañ gën a xam ne am na ay digne ceesuwaay yoo xamantene ni dañoo engagé wu ci politique pour mun a servir Thiès pour mun a servir Sénégal waaw Moustapha Diaw euh, mu ngi yëngatu ci ba ma demee France euh, depuis 2000. Euh, dama fa demone pour défi des études de droit ndax loolu la bëggone man buma sañone euh suma métier euh, donté wees na avocat laay nek pour mëna layal askan wi pour mëna layal doomu sénégalais su nekkee ci jafé jafé et loolu yalla def nak comme boy dem France fay am yeneen responsabilité familiale yuy posé sa kaw ma dem dugg légion étrangère nek militaire. looloo tax xëy na mënuma ci wàllu politique mënuma toog euh, tranquille te defuma dara euh, loo xamante ne nii dina amal askan suma réew amal askan amal njariñ suma réew amal njariñ askan wi amal njariñ suma parti euh, bi ma jógee ci ci militaire gi ma continuer jàng am un master en ressources humaines liggéey à la direction général de Bata à la défense def jàngaat communication après dugg Google Google France Euh, ba ni ma ñëwee Sénégal en 2016 euh, si nag di liggéey Dakar Dem Dikk yàlla def euh, Dakar Dem le président Macky Sall wóolu un Sénégalais bu doon dund ak njabootam amoon li mu am lépp France muy maître Moussa Diop mu jox ko Dakar Dem Dikk mu wooma ne ma ne ñëwal jàpp ci liggéey bi waaye ay la Moussa Diop tamit comprendre vision président de la République bi nga xamante dafa waxoon que ne euh, Sénégal yemul rek ci dakaar kon transport bi war nañ ko war a mën a génne transport bu mucc ayib am sécurité am euh, am am am am di dem ci waxtu di ñëw ci waxtu am sécurité ak qualité bu baax Moussa Diop comprendre loolu di liggéey ci dakaar dem dikk ba teg projet Sénégal dem dikk muy bus Dakar di desservir yeneen dëkk yi nga Sénégal ba Ziguinchor ba Tamba ba Kolda ba Podor ba Njum ba Touba vision président de la République Moussa Diop matérialiser ko une équipe euh, maa ngi dox di ci euh, occasion féliciter Moussa Diop ndax euh, xam nga euh, euh, ba bañ ko joxé dakar dem dik dañ né c'est un avocat qui ne connaît rien du transport mu ñëw fekk dakar dem dik en 2014 biñ ko koy jox un déficit de presque 6 milliards mu doxal doxal doxal ci ñaari at déficitu 6 milliards bi mu indi ko à 1 milliard xam nga koku kon mën nañu wax ne gagnel na dakar dem dik ci ñaari at gañeel na Dakar dem dik lu toll ci juróomi milliards loo xamante ne nii mësta am waaye euh, yemul foofu rek mu mu mu mu doxal Sénégal dem dikk ba sénégalais yépp apprécier ko euh, tey ñu nekk man mi ci laa bokk ci projet di commencer doxal AIBD dem dikk mooy bis yi nga xamante ne dañuy jóge Dakar Mbour Thiès di dem di yóbbu sénégalais yi war a tukki ak yiy liggéey ci aéroport bu bees bi waaye li ci ëpp solo te sénégalais yi war ko retenir mooy euh, jub gi nga xamante ne ni moom lay doxale Dakar Dem Dikk te sénégalais yépp war ci inspiré wu sunu génération ñun ñi nga xamante ne ni ñoo bokk ak moom génération ñu ko war a encourager ñu ko war a accompagner gën ko ñaax ndax waaw góor ci gor day yokk cawarteem ak ngóoraam te Moussa Diop wone na beneen méthode gestion entreprise publique muy transparence njub waaye full at fayda nak ak ñomé courage beaucoup de courage ndax na mu fekkee woon kër gi nga xamante ni euh, semaine bu né grève am mom mu ñew ci ñetti at presque ou 2014 ak légui ou 2016 ak léegi mu mu mu benn grève amul Sénégal dem dikk nii Dakar dem dikk loolu ci ci pasteefam ak fulla ak fayda ak doxal jub ndax boo jubut mënuloo euh, tere ki nga xamante ni dafa bëgg lu jub wala ki nga xamante dafa bëgg sax am porox ndoll mu def porox ndoll ba grève waaye moom jubal gi nga xamante ne nii moom lay kii ak di leeral toujours ñu gis ko muy leeral buy ñëw andi ay kayitam ak ay document am di ko wone nëbbul dara loolu euh, lu am solo la te defe naa mu ngi joxe aw yoon pour ñun ñi nga xamante ne nii euh, ñoo nekk ci langue politique gi ndax ëllëg lu lu lu mat a sóor la te moom defe naa mu ngi sóor ëllëgëm en tant que homme politique. waaw xam nga euh, defe naa Tanor dafa wax loo xamante ne ni dafa am solo ci euh, le grand meeting de Thiès euh, te mu nekkoon une occasion ma doon def sama rentrée politique man Ousmane Tanor Dieng maa ngi xamante ak moom en 1996 ma nekk ndaw depuis boobu ba léegi wax na ko waaye li ma ci gën a neex moom mm, moo moo ne Moustapha sama doom la sama doom la ci ci ci ci ci fànn bépp ndax 96 ak léegi ki ànd at man euh, man ma nangu doon doomam mu nekk suma bàyyi loolu relation boobu am naa ko ak moom waaye li nekk sama relation ci wàllu politique mooy que sama wareef mooy mu continuer di ko wóolu di roy ci moom ci njàng politique ak vision politique ak yéene bu rafet bi mu am ci Sénégal man ma nekk ci ndaw yi nga xamante nii gëm nañ ko euh, topp ko gëm ne moom mii buñ ko joxoon Sénégal tey mu yóbbu ko foo xamante ne nii euh, xel xalaatu ko woon ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk fii biir Thiès euh, muy Ousseynou Kayta di tous les autres responsables ba ci Ndiasse ñing mu nekk suma responsable coordination maa ngi koy nuyu di ko di ko gërëm de passage parce que euh, nu mu war a taxawe taxawe na ko euh, ci ci ci ci yaatal ci xelal parce que ay la yoon ñoo ñu féete mag te ndaw parfois danañu am euh, yéene goo xamante ne ni xëy na dina xaw a muur suñuy bët ci fa ñu war a jëm donte xam nañ ko waaye mag ñi baax nañ fi pour di ñu fàkkal di ñu di ñu di ñu di ñu orienté digal te te ñun ci ndaw yi nga xamante ne ni bëgg nañ dégg euh, ndigal la ndax boo amee euh, yéene bu baax am ñaanu mag mooy tax nga nga nga nga nga yéene boobu te te te ñaan googu la ñuy sàkku ci Ousseynou moom la ñuy sàkku ci Ndiasse Gningue moom la ñuy sàkku ci pap Amadou njaay ak ñépp ñi nga xamante ne ñoom lañ sëkkal langue politique yi parce que am nañ yéene pour parti socialiste Thiès am nañ yéene pour parti socialiste du Sénégal am nañ yéene pour jariñ sunu askan ci biir parti socialiste ak ci biir sénégal waaw li may tàggoo mooy latir di leen remercier parce que euh, Thiès euh, info man depuis france su ma bëggoon xam lu xew ci sénégal fa lay dugg mais surtout li ma gënoon intéressé mooy li xew-xewi Thiès yi te euh, ba ngeen tàmbaleeg léegi ci loolu nga nekk parce que bu fekkoonte ne rek ci télé nationale yi lañu la ñuy xoolee li xew ci sunu terroir muy Thiès xëy na lañ ci am du bari waaye heureusement euh, Thiès Vision mu ngi mu ngi dox lu bari am na yu bari yoo xamante ne nii Thiès Vision moo koy njëkk a fësal que yeneen télévision nationale yi Thiès Info plutôt moo koy njëkk a fësal ci ci que télévision nationale yi te loolu am na njariñ bu am solo pour Thiès waay nekk ci diaspora bi ak Thiessois yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak biir donc ñu ngi leen ci remercier di wax encore une fois le 18 février à partir de 15 heures ñu ngi leen di woo ngir ñu ñëw euh, xamaat parti socialiste xam lan mooy parti socialiste bu démb ak bu tey ak défi yi nga xamantene ni euh, mu ngi xaar Sénégal te parti socialiste war ci am làcc wu yaatu woo xamante ne war na ko bay